ndax bu dul woon li mu nekk mérite di sunu kilifa ngir dereti sëriñ Touba ji nekk ci moom ndokk nag bi nga xamee ni yàlla dogal na muy sunu kilifa ci yaari fànn yëpp ñu di ko siyaare di ko dalal ci jàmm. ci liggéey bii ngay liggéey ci Mbàkke Bawol ak li ko wër di ko liggéeyal sëriñ Touba sëriñ bi nag wax ni dafa am loo ni dang nga koo defal sëriñ sëriñ sëriñ Touba defal ko sëñ Cheikh Jëmb Fall. foofa ne ab dispensaire ni ma ci wetu euh, ci kër sëriñ Touba kër Cheikh Ibra gii nga xam ne mooy paaleen googu nga xam ne mooy fii fi Fat Saw nekk nga xam ne soriwu ko fi la defar ab dispensaire boo xam ne defar nañ ko ba yàlla dogal na àgg nañ ci war koo wubbi ñu war koo defal Cheikh Ibrahima Fall mu jébbal si ko sëriñ bi nag ni loolu la bëgg bu ca àggee ñu taxawul ko ko. te teerul ko gan ñi te defaral ko ko ba li ko sëriñ bi bëgg. lii mu def nii mu mel ni nii. a defar barab boo xamante ne dañ fay fajoo ta faju mënut a ñàkk mu defar ko ba mel na war a mel mu eh, mu jébbal ko sëriñ Cheikh Diop jël caabi yi jox ko tuddee ko soxna maam bu Ndiaye loolu ñun ñëpp war a ci am fer te war nañ cee war nañ war nañ cee war nañ ko jàppale ci loolu sëñ bi wax ne nag bu dimanche nan fa daje. maanaam teraanga jooju nga xam mu defal mu defal sëñ bi a sëñ bi ku ko ku ko defal teraanga muri yi ñoo la ko ñoo la war a delloo ah, njukkal delloo njukkal gi nag mooy dajaloo fa xam ne defal na sëñ bi ki defal sëñ bi mi ngi nii mu delloo ko njukkal ci loolu mu defal sëñ bi tudd fa yàlla maanaam jiitu fa bu fekkee ne lu ñu fa war a defar am na fa ñu defar ko tudd fa yàlla bu sëriñ si ñëwee ñi nga xamante ne ñoo moom bis ba suñ ñëwee mu waxtaan ak ñoom maanaam ki nga xam ne moom la sëñ bi yabal moom sëñ si jëm yabal maanaam mu waxtaane jataay ba loolu mooy ñun li la ko yóbbu del di jaajëfal sëriñ tey jaraw lakkal maam Cheikh Ibrahima Fall ah, xam naa bu fekkante ne sax sama kàddu mën naa bañ a jóg ci jataay bi kon loolu la ñuy def waaye nag li tax mu jógit jar na ko li ko tax a jógit laa bëgg mu leer fii nu sëriñ du Mbacke Ndaw fekk di dëkkab sëriñ Touba di dëkkab boroom gaawaan di daaru salaam di kërug jàmm gi nga xam ne yërmande yàlla moo ko laltaa ci suuf waaye moo ko tiim ci kaw bin fi ñee def fi daayira maam Cheikh Ibrahima Fall daayira sikkurulaay te ñu baree bari bokk ci mel ni mboolem bunti kër Cheikh Ibra yëpp bokk na ci ak képp ku sopp Cheikh Ibrahima Fall monsieur le maire fekk nu fi li tax mu fekk nu fi itam lii rekk la ñu jàll wax nañ ko sëriñ bi dafa wax ne teraanga ju toll nii ku ko defal nit kenn ku nekk am na lu ca war ab Abdou Mbacke ndaw nag mbàkke gi def sa borom def mu yilif ko yàgg naa seq ak ñoom ay taraanga loolu ku ne xam na ko xamuk bu ko bët xoolee dana ko gis xamuk bu ko laxoolambee daj ko waaye nag màngu gi mu màngu jëm ci Seera Faal def ko ittee nag ba fu mu nekk mu fekk ko fa loolu nag moo sori ci sëñ bi lool waaye sëñ Abdou wax ne sëriñ bi def koo ameel ñaari mbir yoo xëyee moo tax mënu koo sori xam na ne way juróom la waaye xam na yoonu sëñ Tuubaa wi itam sëriñam la ne ñaar yooyu nag boo ko séqeek nit nee na faaw nga jàpp ko jàpp sayir ak gu baatin jàpp gu baatin gi moom sëriñ beeg ko téyal waaye gu sayir bi nag sëñ bi daa wax ne bàyyee nañ ko nun dongo yi te bàyyee gi mooy lan lii mujj a liggéeyal sëriñ bi ndax lam njëkk a liggéey lu ci bari gaañ ñu ngi koy tudd ak lim na ma ak lim ko na ma liggéeyal ndéem soo na suñu borom dispensaire bi bi nga xamante ne liggéey na ko waa Mbàkke defe ko ci warumu paaleen mu jege sëriñ bi mu liggéey ko ba mu sotti mu jël caabi yi ànd ak ñi war a àndal teew ci kanam sëriñ bi jëbbal ko ko ne ko maam Seyna bu Njaay sunu maam ju baax ji lanu ko duppee caabi yaa ngi nii ñu jàpp nekkoon liggéey boobu aj dimanche lañu koy ubbi li tàmbalee huit ba jàpp onze heures fa la war a yem ndax bëgguñu mu naaj sëriñ bi nag nenu yéen waa daayira Sikru Laay kat yéen da ngeen ne bu bam seera faal moo xamee fu mu jëm fu nekk daf leen di waaje mbubb nag bu fekkee moom la borom di waaje <clears throat> mbubb ma jamono ju nekk dañ ko war di waajal sëriñ bi nenu bis boobu kat dama koo def itte lool ndax sëñ Abdou Mbacke ndaw kat wax dëgg yàlla bi mu toogee fii ak ba mu toogagut sama jëmm ji saabu ne mi ngi fii ñëw ci suba yi ak ci ngoon yi def ma yitte lool waaye jëfam ji nag dafa ma sori ci man lool ndax li tax mu sori ci man da koo defal njabootu Seere Faal gépp ndax xam na ne maam sa maam Seydou Ndiaye bi mu duppee barab bi xam na mooy maam yi ñëpp. kon cër bi da koo jébbal sëriñ bi waaye cëram ñëpp la jébbal sëriñ bi sëriñ bi nag cëram ñëpp boo ko jébbalee ne ñañ jébbal cër du nañ koo xam jàpp ca ñu bëgg nag sëriñ bi nag bëgg bis baa nag li tàmbalee Mbàkke ak Touba ku ko man ku nekk bis booba nga ñëw ca ngir seera faal mi nga xëyee moom lañu jox mbub mu rafet moomu soral ko ko taarale ko ko te jaarale ko Serigne Cheikh Fall jëmb te lépp dellu ci maam Seyna bu Njaay sunu maam ju baax yi nga xam ne daa ba sa borom ma wàcce ci moom ngërëm li mu wàccee ci moom sëñ bi nag wax nañu ne yaatal leen ko ci rajo yi na ko ñëpp dégg ndax jëf ju baax bees ko defalee nit te ñañ ko defal ñu tax ne ñooñu war nañoo ñëw ba xool jëf jë seere jëf jë nangu ko nag ñu bëgg nag jëf ju baax jooju nag ñu bëgg koo daloo dimanche nag sëriñ bi dana fa yebal ak njabootu seere faal gi yëpp. ak seex yeeg dongo yëpp nag sëñ bëgg nag ñëpp nag ñëw teew ca nag ba cër boobu ñu dugal biir kër Seera Faal te mu def ko itte nag ñëpp xam nañ ne Seera Faal cër bii kat cër bi neex na ko def na ko yitte yëg na ko jàpp na ko te mi ngi sant ki def cër bi muy sëriñ Mbàkke Abdu Ndaw mi